ñi nga gis fii ñu taxaw fii yëpp ay frustré lañ ñii dañ leen exclure ñii dañoo dem ba gisatuñu bopp seen seen bopp ci association bi ñu bàyyi ñii ñii da ngay waaru daal président bi nag fu mu nekk nii bu ko autorisé yi woowee xam nga lan lay wax Paco ak Fall ñooy problème bi dañ jël xaalis douzième ngeen ñu dàq leen yéen est ce que ñi ngeen gis fii ñëpp Paco ak Fall kese la ay membres yu reconnu kii taxaw ak man mooy commissaire au compte douzième ngeen Léopold Zale bi wax sànq moo demoon élection en 2011 ak président bi fi nekk président bi gagné ko six fois wax na ko léegi te ñooñu ñu ngi ci association bi ñu ngi ñuy conseillé dynamique bi ñu nekk nii nekkuñu association bu bees bu judd wala dara ñun on est des douzième gaynde et on représente ce pays li xew mooy dañ ñu fi bëgg jëlee jël ñeneen teg leen fi parce que xëy na président bi décrié nañ gestion bi nga xamante ni c'est nébuleuse mun na dañu fiy jële moo tax bépp activité bu ñuy def Paco bi muy jógee aéroport dem nañ di ko teeru mu jéem a essayé nu mu yàqee manifestation la stade gis ngeen keroog Sénégal bi muy joué ak Algérie ñu ñuy gagné ay nervi la indi ay nervi rakku ci seras si la bokk ñooñu empêché ne duñ dugg si car bi dizaine de nervi buñ fa xeexoon keroog xëy na dina am ay blessé wala kii pour empêcher keroog match Algérie bi man mi di président commission culturelle ak ñi fi toog di tëgg yëpp kenn dangul Paco si ko agressé ca stade ba boole ak ay nit ñu dóor ko ba hôpital la mujjee yeewu loolu ndax lan parce que dañoo décrier gestion bi léegi loolu ñu autorités yi ñu ngi leen di interpeller président de la république Macky Sall Amadou Ba le premier ministre Lat Diop bi nga xamante ni moom moo chargé ci affaire exécution wu Coupe d'Afrique bi Augustin Senghor nga xamante ni mooy président fédération moom bu ñu gisee ñi dina xam ne ah ñii ay jàmbaaru douzième gaynde lañ ñu ngi jëm ci Coupe d'Afrique bi mais président bi fi nekk daf ñu bëgg empêcher ñu dem tudd ñu beneen tour amuñu beneen association douzième gaynde bi ñu nekk si la ñu bokk tey si la bokk ëllëg léegi nag dañu ñu bëgg génne douzième gaynde ba suñu activité yi bi ñu koy si réew bi sax ñu dem dugg foofu ne ñii amuñu amuñu légalité bu leen fi bàyyi ñu dem kon tey président bi bu nekkoon président de la république dañuy génne Sénégal ñu ngi dem ci coupe d' bi nag bëgg nañ niñ doon demee si coupe d' bi di am ay ndam ci coupe d' afrique yi ak afro basket yi ñi ngi jëm ci coupe d' afrique ñi ngi woone ah ñi ngi woote à l'union des cœurs ñu àndandoo ni ñu àndandoo woon parce que Coupe d'Afrique bi ñun ñii tey ay habitué lañ des grandes compétitions te nag fi mu toll ni ministère ñu ngi lay interpellé boo waxulee si cas bi doomu Sénégal yi taxaw fii yëpp danañ leen sacrifier du ñu dem te ñii ñoo représenté Sénégal depuis plus de vingt ans vingt cinq ans. douzième gaynde amul bilan amul évaluation amul rapport moral amul rapport d'activité amul dara amul fiche de bilan amul rien carte de membre amu fi cotisation amu fi.